nervi yi ngeen recruter woon ñu doon milice ngeen jox leen ay gànnaay fala budda dinañ wax parce que xam nañ ne dañ leen bëgg sacrifier tàmbali nañ wax waxtaan naa ceeg kenn nee naa leen bu kenn yàkkamte waxtaan bu gudd bu wax ma ñan ñoo doon recruter arme ci biñ ko wàcce ca siège ba kan moo doon joxe arme yi tur yi jamono yi ñoom lu tax ñu singali leen dañoo lànk bañ parce que fay ñu leen seen xaalis ñu lànk bañ arme yi yoroon arm yi ñu yoroon delloowuñ ko ba am na ñu ci joto rëcc génn Sénégal daw def ay vidéo def lépp ñooñu nag dañuy mënaase fi mu nekk nii seen seeni njaboot comme loolu la nag te gëm nañ ne ñoom dañ leen sacrifier ci mbir mi ñu def ay interview yu yaatoo yaatu waxtaan ak ñoom ci lu baree baree ñu wax fan la lan leen comme pour pour versé ñen ñoo recruter arme en arrière taatu oto bi dugg ñu wàcce kees yi jox leen

nee naa leen jotagul bu jotee rek ñu taxaw ci taxaw biñ ci war taxaw saa su ne incha allah léegi nag